الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات mboolem mi fi teew maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam wax dëgg yàlla bi may ñëw fii amoon yéene jël kaddu bi barki démb la ak si pendant trois mois maa ngi ma ni woon damay ñëw wane sama jëmm ñëpp xam ni agsi naa pour feddali ni fekk fu ngeen taxaw danaa taxaw si seen wet fekk fi yeewu askan wi taxaw danaa taxaw si wetam fekk sama doom ji toog Barthélemy taxaw danaa taxaw si wetam dañu toll fu nga xam ne fii ci seen affiche da ngeen wax l'essentiel en route vers l'essentiel essentiel mooy lii essentiel mooy leader yi nga xam ne ñi ngi toog ndax Senghor essentiel naan quand l'essentiel est en danger s'opposer est un devoir man ma toog waxu Senghor wax ni quand l'essentiel est en danger s'engager est un devoir. C'est pour cela que nous sommes tous engagés gannaaw bi ma dégloo le président Khalifa Sall mu wax ba pare dafa fekk ni kenn amul leneen loo si teg bi yëpp leeral na ko fi mu jaar sama doom ji toog Barthélemy leeral na ko li ñuy ñaan yàlla rek yàlla jox ndam si